Sonko de yëngal na jamono. Ah. Sonko rek Sonko. muy xuloog kenn téeméer génn. Ah. mu ne mel ne may xuloog ñanga. ñanga ñanga Kaolack. seen waa kër ak seen waa koñ ñëpp ay mbokkam ak ay ñëpp daal ciy dugg. Ah. su ma nee ñanga sa bët bi rek seen waa kër lu tax naan ko sa bët bi fii waroo koo wax ak lii. Sonko muy xuloog Macky Sall ñëpp xuloo moom. sot sotaguñu noonu. ñu dem laaj ndax bayri xuloo la yar waral mu def ñu seet Sonko. jërëjëf jërëjëf jërëjëf wax dëgg yàlla boo ne kuy sama kii nga xamante ni nii mooy Sonko di kenn koo xamante ni nii kenn dootu ko prétendre ci réew mi koo koy sama gan mu am nag am njàngat goo xamante ni nii Sonko ba mu defee sorteem ba léegi wax dëgg yàlla gis nañ coow li gis nañ bruit ginnaaw ba ma la nuyoo Sonko maa ngi leen nuyu auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu ñëpp xale mag ndaw mhm. euh, di wax nag xëy loolu la yàlla def mhm. émission bu mel nii. Mhm. dama ciy sawar ñëw parce que yow sa émission coono gi nga am ak daj bi nga ciy daj ak euh, lépp lu ñu am. ñu ngi ciy di gone goo xamante ni wax dëgg yàlla ba mu duggee ci langue politique bi ba léegi wax dëgg yàlla xel dal na mais Sonko ñu am njàngat goo xamante ni koo gis gis na ba nga defee sa sortie ba léegi wax dëgg yàlla ki ngay waxal ak lay tontu sa diamétralement opposé lan mooy problème bi. <laughs> xam nga bon boobu euh, lay expliquer sama jaar-jaar euh, opposition opposant noonu la war a def euh, dañuy xool suñu papa Ablaye Wade rek bi mu fi nekkee daawul may dara ndem si yàlla gi Senghor ba Senghor dem bàyyi ko fi mu defal ko tamit Ablaye Wade tamit Ablaye Wade defal ko tamit Abdou Diouf mosu ko may dara loolu nag mooy opposant maanaam toujours war ngay génne ay xibaar Euh, wa wane ko pour nit ñi mën a xam ne yow kat da nga taxaw taxawaay wujjee mhm. mais nag doo fi nekk di raay mbelle war a élection ba élection ngay ñëw man lépp lu may wax rek am na fu ma ko teg jërëjëf kooku Sonko nee na lépp lu mu wax am na fu mu ko teg Sonko ñu dégg ko ci gaz bi Sonko ñu dégg ko ci pétrole bi barki di moo njaay la sotti def tudd ay milliards yoo xamante ni nii maara de tali ci réew mi Sonko noo gisee loolu waaw euh, li may wax nag dafa am parce que man du ma wax loo xam ne amul mhm. euh, gis nga waa Turquie yi waa Turquie bu ñu leen bàyyee ci kanam tuuti dëkk bi ñëpp arab nañu wax. nga ñetti pays yi am nañ loo xam ne Sénégal kenn amu ko fi. muy laaj ma benn France. benn France. ñaar chinois yi. chinois yi ak waa Turquie. waa Turquie ñetti làkk yi ci kanam tuuti fii ak fukki at. Mhm. suñu doom yi bu ñu ko jàngul du ñu mën a liggéey ci réew mi. boo demee ay aéroport AIBD Turquie ñoo fa nekk. Mhm. chinois yi yenn marché yi ñu am fii ci réew mi mënuñu koo compter. français yi damay bañ lim parce que ci émission nga nekk bëgguma wax ay waxu sponsor. mais euh, marché bi gën a mag. te supermarché bi gën a mag xam nga ko du ma tudd turam bi. ñoom français yi ñoo ko moom. estation yi ñoo ko moom. ah yu bëri ñoo ko moom. te kon nag euh, ci kanam tuuti boo déggul français déggoo chinois déggoo arabe doo mën a liggéey ci réew mi lu ko waral mooy ay marché yu leen di jox. te loolu nag su ko gisee dama koy dama ciy xëpp xeer. waaye nag li ma metti mooy kenn laay waxal fukk fukk tontu. loolu sax mooy sunu dernière question Sonko wax nga wax ju solo wax dëgg yàlla sunu langue nationale di olof yàlla buñ ko perte yàlla buñu perte sunu langue nationale bi nga xamante ni mooy wolof bi waaye Sonko dunoo seetlu wax dëgg yàlla heure boo waxee kenn duñu gis téeméer tontu la. gis nañ ci ba ci Moustapha Cissé Lo nañ ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye yow bëgg xam say wax gis nañ kuñ koy adressé waaye ñi lay tontu lan la. waaw bu dee ci cot avocat yi li ci mooy wax. Hmm. kooku moom mun nañ jàpp ne métier la. parce que koo xam ne boo waxul doo mën a dund faw ngay wax ah, te waaw waaw loolu laa ko mën a jàppee parce que man li may wax ni dama ci am ay firnde waa may limay wax nii bu fekkee amul nañ ma woo juum ma ci kaso bi nga ni dama ne bañu ma ba tëdd kaso bu fekkee ne wax ni amul nañ ko vérifier ñoo jël si ma Moussa euh, Cissé nag man duma wax ak moom Cissé Lo man duma wax ak moom daf ma mot bàyyi mais ëpp ma xam-xam te li may wax dafa am ko teg ñoom wax nii c'est pour Macky Sall jàppale leen mais man li may wax dama ko teg ndeyu mbili ji laay waxal Macky li may wax nii daf ko intéressé mais dama woo ci buur ñu jàkkaarloo face à face ko ni ma wooye nii maa ngi koy woo ci daje yow président Macky Sall ñu ñu jàkkaarloo ma wax la lu dul te li ma wax aw ma dara lu ma ciy ragal man li may wax dama ci teg lu leer teg ko fu leer dama ne mm-hmm. bu am nga doom burgeeru waaw jàngale ko yóbbu ko Chine mu jànge niha nuhu mu cucu di daani am nga doom na dem jàngi je m'appelle comment ça va ça va très bien mhm. am nga doom na dem jàngi sukkaran bayti leen wa haza kan man na bu dàkkul ñetti làkk yooyu ci kanam tuuti fii fukki at doom du liggéey Sénégal parce que ñoom ñoo ñu gouverner dëgg la loolu nga ngi dégg noonu muy Sonko wax dëgg yàlla ci ay kàddam xeetu lu lu lay wax wax dëgg yàlla dañ koy comprendre xam ne xale la boo xamante ne dafa dugg tey ci mag ñi wax dëgg yàlla di ruube mais Sonko ruube gi lan la ruube gi. ruube gi ruube wax dëgg yàlla heure boo génnee foofu doon no mooy mokk lu mbax boo génnee dafay sorti foofu mokk lu mbax. waaw mais maa moom bopp kenn yëkkatuma maa jógal sama bopp ni ma tolloon laa toll ba tey. Mhm. man melu ma ñenn ñi nga xam ne bi ñuy xëccoo nguur ni ñu tolloon ak bi ñu toogee ci nguur dañoo sekki man dama naw Ablaye Wade parce que bi ma ko gisee mu nekk président de la république ni Ablaye Wade meloon ak bi mu nekkee ci gouvernement nguur lu toll fukki at. changé wul. dëgg la na mu tolloon ci poids la gën a toll. waaye am na ñoo ne xam na may wax. dañoo nekkoon ci nguur avant ñu nekk ci nguur dañ doon peser quatre vingt cinq kilos. léegi tey wax dëgg yàlla ñu ngi ci cent quatre vingt cinq. Ah! waaw kon am na ñoo xam ne da ngay xool sax xam ne ñu ngi sekk te li ñuy sekkee mooy alal réew mi man xaw dara lu may ragal ku am loo wax ak man na nga ñëw woo ma débat ma jàkkaar la yow Cissé bu fekkee ne moom dafa yaakaar ne moom mooy porte parole gouvernement bi mhm. man jàkkaar ñeme naa jàkkaar la moom du ma daw du ma dellu ginnaaw te ragalu ma mais moom sax dégg nañ ci benn sorte mi ne wax dëgg yàlla yow wax dëgg yàlla euh, Casamance rek nga mën a Casamance waaw d'accord na waaye xam nañ ne fu ne nii mhm. man maa leen yëngal xale bu ndaw Eh. xale bu ndaw lu ñu mën benn mën naa ko fukk fu ñu ma woo ma wuy si leen fi ma bëgg a féetale nag xam naa ko bëgg jël nit def ma nit koo xam ne euh, ber ma ci affaire u islam islamiste la kii kërëb kërëb mënuñu ma jaxase ak Sénégal sama diine fonk naa ko hmm. waaye kenn du ma dugal ci loo xam ne ne réew mi ci boppam dañ cee lam-laame déedéet dama set wécc moo tax ma sol lu weex ah. te du ma xale boo xam ne dañ may bat ci ba te xale bu ndaw la eh. la ilaha illallah waay si xale bu ndaw laa lu ñu wax benn rek mën naa ko fukk jërëjëf lu ñu mën mën naa ko bu ñu foogee na te xam naa nu mu demee ndax sama jabar xaal pulaar la dégg naa xaal pulaar dégg soose dégg joolaa dégg olof dégg anglais dégg français lu ñu mënul mën naa ko lu ñu tële mën naa li ma ci gën a neex sonko nee na xale bu ndaw la li ma ci gën a neex sonko bi na xale bu ndaw te wax dëgg yàlla am na suñu waykat woo ma génération xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom laa àndal tey. waaw di booy yi nga xam ne ñoo fi nekk. Mhm. tey ñii laa maasal génération ñi nga xam ne ñoo am 30 ans 35 jàpp 40. Eh. Eh. dañoo ñoo fi nekk. Mhm. de yéen a fi nekk. waaw yéen a fi nekk. kon man ñii laa mën a waxal. ak man ñii laa génération. la man Sonko ne leen yee man Sonko. ne leen yee Sonko. yee yee yee. man Sonko. yee doto songo mel na sonko ee eh, dinga eh, man sonko ee eh, kuma songo ee doto songo sama wax jalu muus la soo ko waxee fekk fa dara muus du jël ci neen neenu neen kaani bi ci la koon mu sene damay yëy kaani damay naan poobar Eh, du ma daw du ma ragal dala parce que wala jëfa dafa la ko wan yeyeye du ma pata yeyeye eh, du ma lex samay lex eh, guxuma samay lex suñu quatre cent mille soñu ko joxee ñu wax boo ñu ko joxul ñu wax suñu quatre cent mille soñu ko joxee ñu wax soñu ko joxul ñu wax suñu quatre cent ko joxee ñu wax soñu ko joxul ñu wax yeye may sonko kuma songu doo ko defati suñu quatre cent mille nañ ko jox bu ñu waxee ñu jox bu ñu waxul ñu jox suñu quatre cent mille